pétrole bi ndax ñu ñun itam effectivement daan nañ ñu woo ñu ci waxtaan surtout si contenu local bi. Mm-hmm. muy lu am solo. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, Sénégal nag dañ mujj dañuy toog di croiser croiser seen bras ba am ñu jóge ko bitim réew. ñëw placé parce que li tubaab di wax ne la nature a horreur du vide. contenu local boobu war nañ ko mun a jël suñu bopp. waaye boo xoolee ba léegi dafa mel ni préparation en amont bi ci waroon am ba léegi des na mm-hmm. euh, bonne gouvernance transparence parce que dañ ne les ressource appartiennent au peuple mm-hmm. lu ñu moom nag ñi nga xam ne ñoo nekk yàlla dégg ñu nekk ci bot ci kaw réew mi lépp luñ ci def nañ ko def communication mm-hmm. ñu xam parce que nit bu xamulee xalaatam day dem fu nekk waaye boo ko xamalee mun na am mu fixé wu te nangu loo xam ne xam bi nga ko xamal moo tax mu nangu loolu muy la bonne gouvernance euh, il faut que ñu xalaat aussi ne on n'est pas un pays pétrolier comme l'Arabie saoudite man loolu la imaginer parce que ma nekk ràññee ba léegi pétrole mi ngi Arabie saoudite ñuy exploité te jeexu ñun est-ce que li ñu gisagum ñaata temps lay durer donc war nañ xalaat l'après pétrole hmm. gannaaw baril bi génn na tey hmm. war nañ xalaat l'après pétrole ndax boo xoolee tey su tey ni déggee quoi l'exemple dañ defoon focus seen lépp ci pétrole pétrole bi kii foofu na crise moo fa installé ba faw hmm. donc bu ñu fàtte ne yeneen domaine d'activité yi nga xam ne ñoo ñu doon dundal avant ñuy am pétrole. Mm. bu ñu leen négligé. bu ñu leen négligé mukk xalaat ne da nga am pétrole bi réglé na suñu problème parce que. surtout que du ñun ñoo koy liggéey dafa volatile. Mm. liñ ci am déjà bëriwul comme pourcentage boo ko xoolee. World Side li mu jël euh, euh, moo ci ñu ci ëppale. Mm. Petrosen li mu ci jël lu tuuti la. donc loolu yëpp euh, war nañ ko xalaat. Euh, comme ni ko doyen wax nag effectivement les pêcheurs dès les débuts woon nañ leen ci ay ateliers yu bëri dalal seen xel dama xamul nag ndax dañ leen di paracétamol wala <laughs> réellement danañ yàq seen liggéey parce que dañ doon wax étude environnementale def nañ ko bu ñu ragal lu bëri ci seen impact bi parce que ñoom itam defe naa zone bi ñu nekk zone de pêche la bu ba am solo pour mm-hmm. mais loolu yëpp l'un dans l'autre bu ñu leen war a defal ay formation pour ñu adapté wu ci yeneen yi bu ñu ci tardé mais àla kuleyal lu ñu ci mën a def rek nañ ko def en tout transparence mm-hmm. loolu laa bëggoon wax